C'est avec un réel plaisir de vous rencontrer encore une fois chers internautes de Lou'Bess TV j'espère que vous allez bien ñu ngi leen di nuyu bu a baax di kontaan te dañ koy def ci ñaari partie première partie bi ñu war a waxtaanee nag li nga xamante ni moom mooy match amical club yi parce que xam nga ne heure yi léegi nii championnat yi commencé mois d'août bi rek euh, dinañ waxtaanee li nga xamante moom mooy club allemand yi waxtaanee

Afrique am na ay représentants que soit équipe masculin ak li nga xamante ne équipe féminin yi kon donc ki nga moom mooy Bayern ki nga xamante moom mooy

xamante moom mooy quatre buts pour fàttali leen rek ki moom mooy Aston Villa Moussa Diaby nekkoon foofu noonu mu jóge fi nga xamante ne moom mooy championnat Angleterre dem fi nga xamante ne nag moom mooy Al Ittihad xam ngeen nga xamante mu def moom mooy Aston Villa dem nag fi nga xamante ne nag moom mooy euh, Arabie Saoudite beneen match bi nag dafa nekkoon li nga ne moom ñaari équipe anglais diggante équipe bi nga xamante moom mooy euh, West Ham ak kooku noonu nga xamante moom mooy Wolverhampton te gis ngeen ne daaw Wolverhampton ci fin saison bi la góorgóorlu ba mun a maintenir li nga xamante moom mooy ci Premier League bi démb nag ñoom ñaar dañoo tasoon pour waajal li nga xamante ne moom mooy Premier League bi waaye surprise générale nag ki nga xamante ne nag moom mooy Wolverhampton moom moo dóor kooku noonu nga xamante ne nag moom mooy West Ham gis nga ne daaw tamit équipe boobu noonu nga xamante ne nag moom mooy West Ham dafa amoon difficulté ci championnat bi bu baax a baax a baax ak li nga xamante ne sax même coupe d'Europe bu nga xamante ne moom qualifié na sax amoon na ci ay difficulté kon donc kooku nga xamante ne moom mooy Wolverhampton moom moo ko gañ 3 buts à 1 beneen match bi nag ki nga xamante ne moom mooy Brighton moom moo déplacé woon dem nga xamante ne moom mooy Sien foofu noonu nga xamante ne moom mooy Tokyo Verdy moom nga xamante ne mooy Brighton moom euh, mooy euh, Marseille dinañ ñëwaat euh, boobu noonu nga xamante ne moom mooy Tokyo Verdy 4 buts beneen match bi nag dafa opposé woon équipe boobu noonu de Stuttgart ak kooku nga xamante moom mooy Kyoto Stuttgart bu ñoom Seydou Gira grâce yi xam ngeen ne grâce jóge na fi nga xamante ne moom mooy Stuttgart dem na fi nga xamante ne moom mooy Borussia Dortmund xam moom mooy Stuttgart daaw mu def saison bu extraordinaire foofu noonu nga ci bi kon donc ci attaquant guinéen boobu nga xamante moom mooy Stuttgart moom tamit na dem bu match bu métti di nga moom mooy ah, moom mooy Stuttgart moom mooy Al dañoo déplacé dem fi nga xamante moom mooy biir Portugal fekk ji nag kooku noonu nga xamante moom mooy FC Porto xam nga ne nag dafa moom moom moom moom nekk ñaari match yi nga moom moom ci préparation yi dugg foofu noonu nga xamante biir Portugal mu am li nga xamante mooy ñaari défaite kon donc ñoom ñooy euh, joueur Al Nassr ñoom Cristiano Ronaldo bien vrai que Cristiano Ronaldo ba léegi moom football ñaari match ah, ñoom Sadio Mané ak ñoom ñi nga xamante ne euh, Arabia ndax année bii moom moom day métti lool lool lool lool euh, ci championnat boobu noonu la beneen moom mooy Naples moom tamit dafa doon football démb match moom tamit moom moom mu jëy gagné 4 bi à nga xamante ne moom mooy Napoli ngi wax ne dañuy jaay victoire Osimhen ñii ñi naan dem na ñi naan dimbal kon donc ñun dañ leen di li nga xamante moom moom cas boobu noonu ba bis bu kooku noonu nga xamante moom mooy euh, victoire Osimhen a jóge Napoli ñoom tamit dañoo nekk ci defarwaat ndax euh, ñoom dañoo changé ko tuuti jëndaat am tamit ay joueurs yu bees kon donc mën nañ xaar ni Napoli bu jëloon li nga xamante moom mooy championnat euh, Italie bale na moom mooy ci match moom mooy Benfica doon xubal kooku nga xamante ne moom moom mooy Feyenoord 5 bi à 0 te gis dafa nekk équipe bi nga xamante équipe bi nga xamante moom mooy ñaari moom nekk équipe bi nga xamante moom mooy Como ki nga xamante ne Borussia Barth moom dafa balaa mooy final boobu noonu 2 euh, buts à 0 wax naa la première partie bi dañuy wax li xamante moom mooy match amicaux yi am ci diggante euh, club yi waajal li nga xamante ne mooy championnat bi deuxième partie bi mën na la ci xamante moom mooy phase euro phase euro bi wax naa la ki partie deuxième partie bi nag ci li nga xamante ci phase jeu jeu yi nga xamante yi am Paris 2024 jeu olympique yi nag wax naa la am na yi nga moom moom équipe euh, africaine yi nga xamante yi nga xamante nag moom mooy Canada surprise générale nag équipe jigéen Canada yi nag ñoom ñoo mujjee ga ñu xamante mooy équipe jigéen France yi mu nekk nag défaite bi nga xamante moom nag boo xam bu amer la ci français yi ndax heure yi nii nii pour ñu mën a qualifier foog ñu góorgóorlu gagné li xamante ne moom mooy seen ñaari match ah yi ñu gagné benn match loolu à la benn match nag dafa euh, kii woon diggante équipe bi xamante ne moom mooy euh, Nouvelle-Zélande ak kooku noonu nga xamante nag moom mooy euh, Nouvelle-Zélande 2 buts à beneen match bi nag match bu métti woon nag ci diggante équipe bi moom mooy Australie jigéen Australie a neex a neex te bëri tamit li nga moom mooy bi ndax boo leen xoolee nag nga xamante ne jigéen Australie ñoom ñoo gagné jigéenu boobu noonu vraiment match de but la bi nga xamante ne a neex vraiment Zambien ñoom tamit euh, macha allah def nañ li nga euh, moom mooy match boobu noonu kon nag gis ngeen ne match bi dafa jeexale xamante moom euh, bi à 5 beneen match bi nag dafa tombe diggante équipe bi neexoon na lool lool ndax boo leen xoolee Nigéria def nañ tout pour rek arranger nga xamante moom mooy match bi waaye far yàlla

nga xamante ne mooy coupe du monde féminine U20 ñu jëlaat tamit nag li nga xamante ne mooy coupe du monde féminine U17 li nga xamante ne euro féminine U17 ñu jëlaat tamit xamante ne moom mooy euro masculin U19 yi tamit lañ ko jël kon donc mën nañu wax ne surtout nag euh, li nga xam ne moom mooy Espagne seen jigéen yi moom euh, macha allah kon donc tey lii la leen andiloon ci xam seen actu sport ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan seen fidélité bi ngeen àndal ñoom jaa ngeen